at Jackson. lamb ju terrible la. lamb ju doy ju jaaxal ak joo xamante nii. ba yéeme na mais bii tamit ah. maanaam li tubaab naan inattendu kenn xaaru woon ñi ci juum bëri na. waay waay waay waay ñu bëri seen pronostic dañoo daal ñi ci ñi ci ñu bàyyi téléspectateurs yi seetaan ko. ñu mais nag dama yaakaar noonu Lac Rose moo ëpp fuuf. dëgg la mais xale bi de da est-ce que sekkul eh. Lac ñam na. Birima du arrière. Birima ndax dina dem wala du dem. luy xew. Lagros Jackson Jackson géej waaye mbooloo Lagros écurie Fass. Lagros bu ma doon moom du ma xeex gisoo rak Lagros bul xeex. Jackson door na gauche droite Lagros bul xeex. daje na kor na ko door ko. daw na jël ko. bul xeex Lagros bañ na. daje nañ. Lagros Jackson. caxabal dina am wala door tànk caxabal dina am wala plaqué fàq plaqué bët ah Lagros daan na Jackson. la ma Rose daan Jackson. daan ko jëlee bu rëy. allahu akbar. la ilaha illallah. waaw Fass delluwaatee coach Rassa bu ñu delluwaatee ci réaction bi nii lii dafa garaaw quoi. Mhm. combat Lac Rose ak ki nga xamante ni mooy euh, Jackson. Jackson mi daanu ñu gis ko mu débuté komba bi diriger combat bi. Mhm. lan lan boo ko doon conseillé tey buñ combat bi nekkaatoon suba. tey boo koy conseillé moom lan nga koy conseillé. bu combat bi nekkaatoon suba suba suba dama naan kon ni nga entamé combat bi. Mhm. mooy xeex bi. tey combat day toll foo xamante ni dafa am lu ci avantage. Mhm. am loo xamante ni avantage wu la. ok moom tey li mu li mu commencé woon ci làmb ji loolu moo nekkoon moo nekkoon lu mu war a def. xam nga dañ ne parce que tey boo xoolee bu ñu jàppante Lac moo ëpp laf quoi. effectivement moo ko ëpp prolonge laf mhm. maanaam Lac mën na jàpp. ba mhm. pare ndengeñ te boo xoolee loolu la def. effectivement waaw léegi moom avantage am mooy lii la woon xeex xeex bi waaw xeex bi. comme li mu indi contre Pape yi rakk ji. Mhm. loolu la waroon indi parce que boo xoolee tuuse na euh, Lac Rose. Lac Rose ba mu ba mu ba mu tartari xaw a tërëf léegi nag warul woon a yàkkamti làmb ji yàkkamti rek ko ci daan. ok mais Lac li mu bëree loolu la war kon dafa waroon wàññi làmb ji. benn par benn benn par benn. looy def waaw cons làmb ji quoi. mais boo xoolee jour bi dafa yàkkamti quoi da ne coûte que coûte naa jeexal naa ko jeexal quoi. Oh. te lagros mbër bu mag la. Mhm. xëj na ni mu demee nii la sax mais. non Lac garmi la. waaw Lac Rose ku mu mës a wéetal géew kay. am na leneen lu ñuy xaar ci moom du woon fii quoi place am du woon fii parfois nag ndog-ndog moom ndog-ndog du ñàkk ci doomu aadama mais mbër la mais champion dëgg la. ba pare ni mu litee noonu la war a li mu def noonu la war a def quoi. ni mu bëree noonu la war a bëree lii la waroon bëree lii la waroon bëree. comme naka comme naka décorté ñu ko combat bi quoi maanaam ñëw bàyyi booy bi at combat bi. parce que bëri mag a xale. Mhm. chaque jour yow mag bi dangay ngay dam yee quoi. Mhm. da ngay dam yee bàyyi booy bi combat bi. Mhm. maanaam booy am na fu ñuy toll dañuy jël combat bi yanu ko mooy li li li kii def mooy li Jackson def. ok boo xoolee combat bi dana maa maa ëpp doole. maa gën a xere maa gën a féete xale ci yoon damay ñëw jeexal ko. Hmm. ba pare ci dynamique de victoire yi mu yi mu toog. tamit xam nga tegle ay huit victoire. Hmm. xam nga. loolu tamit da ciy gérer. lu tax booy booy problème boobu la. booy am baari baari dafa tegle ay ndami ndami ndam. talfa dafa tegle ay ndami ndami ndam lan mooy problème bi ba booy bu ñu teglee ay 4 victoire 5 victoire rek dootuñu gisati dara seen kanam. man affaire boobu daf may daf may daf may bett quoi. ci ci mbër quoi loolu mooy affaire bi parce que ndam dafa am nu nu noo koy dundee quoi. Mhm. dafa am mbër yoo ki nga xamante ni mooy Lac Rose combat yi fi Lac Rose bëri daan yi fi jël yi fi rek Lac Rose amul jël bu mu fi daanul. mbër xam nga mais si dernier temps comme Lac Rose lim fi feebar amee genou bi yooyu ba pare toog lu yàgg bëriwul mhm. yooyu yëpp day joué quoi boo xoolee Jackson mooy gën a am compétition ok parce que chaque instant moom mu ngi fi année bi dina ci bëri ñaari yoon wala benn yoon ok mooy ëpp compétition ok mais Lac Rose temps yu mujj yi nii boo xoolee gis nga ni muy demee contre fils de Balla dafa ñëw xam nga maintenir même ñëwul 100 pour cent mais dafa ñëw xam nga gérer combat bi waaw ba am fa niil comprendre nga bii mu ñëw bàyyi booy beex làmb ji cela veut dire que mu ngi ñëw ndànk ndànk quoi mi ngi dellu si waat mu ngi delluwaat si làmb te maanaam victoire bii nii da koy gën indiwaat ci làmb si si waaw ba pare da koy ibbilaat yeneen porte quoi si koy wan ne moom bokk na ci làmb ba ba léegi quoi. si mën na mën na mën na mën na bëriwaat ba ci kanam. mën na bëriwaat ba ci kanam parce que euh, fii moom comme ni ma la wax rek Sénégal moom nekk na mbër dëkk boo xamante ni booy booy daanu. Mm-hmm. say say say àndoor dañuy dellu ginnaaw. Mm, mm. fi léegi yaa ngi daan nag say àndoor dañu lay gën a nit ñi dañuy gën a ñëw parce que dañu ragal defet quoi. loolu mooy suñu problème parce que bi day tax sax mu xam ne moom làmb ji ba léegi. ba léegi mi ngi parce que ku ci mel ni Jackson xale bu weex bi xool ko rek Jackson soxu kon tey bu demeeti nii ci moom mi nga xamante ni ñi ñu doon wax jeexal na ñi naan mag la ñi naan jeune bi mënatul. Mm-hmm. tey boo xoolee rétention bi mu daanee moom tamit rallonge bi da ngay gis. da ngay gis ni muy déplacé au jeune am di rëpp di ko dugal moom di ko suuf donc fàqat ko mu wàcc xam donc day xam ni kii moom moom boppam jamono jii nii donc te loolu la ñuy xaar ci athlète bu nekk quoi xoolal ni mu dawee jël ko mu def rotation xam nga nengeñ ko jàpp mhm. xam nga dafa imposer boppam imposer mën a bërëm xam nga booy bi daal benn juum boobu daal la def mhm. mooy warul woon a teel a jàppanteex sawaay parce que ponkal buy posé cent kilos wala cent nangam kilo mhm. kooku da nga koy jéem a déplacer wàññi ko quoi. maanaam di ko réduire. tuuse ko pour mën a wàññi wàññi kiiwam quoi parce que poids poids bi muy am da koy tuuse pour mën a wàññi li nekk ci moom pour nga mën ko jël mais moom fi mu ko jëlee boobu fekk na lagrose mu ngi fa. Mhm. jeexul coffre bi jeexul quoi maanaam soufflé wu ko def ko dara quoi dafa gaaw quoi. Mhm. maanaam jëlu fi coup boo xamante nii war na ko mën a dem jeexal. waaw jëlu fi coup boo xam ne war na ko mën a dem jeexal da ko waroon a touché waat tuuti mu xaw a jeex quoi mu doog a bëreex moom. ok mais instant bi Lac comme ñan instant bi ñooy ay naataangoom ci làmb ji waaye ñoom ñu ñoo xamante ne war na mën a bëri ñoom waaye ñëpp nañ fi bàyyi nañ fi nañ fi bàyyi booy duut seen de. non duut Sané. duut Sané moom sa la professeur le le le kii le roi Sané. Roi Sané moom nañ ko bàyyi waaw mu ngi ci jàmbaar la nag. Ah, ah, booy Garaaf li ma gis ci moom moom li ma gis si si si li ma gis ci moom moom. ma gis ci moom moom mooy loolu mais mais Lac Rose ñan la war a bëri mën a bëri l'instant bi coach. Euh, Lac Rose fi nii day day day demaat ci ay moroom rek. wala mu may booy chance wala mu continuer. man nag loolu laa gënoon gis ah, mu mayaat booy. chance continuer booy fi mu toll nii Modou Dia moo daan démb. Mhm. na ko may chance. yii loolu ñemewu ma ko. voilà xam nga coach loolu sax nga ko boole. waaw parce que Modou boo xoolee. tamit Modou Dia dafa nekkaat ci yoon jamono Modou Dia na ay moroomam yëpp ko ok tey bu bëree Lac Rose yoon na ko lamb moo leen boole. mais Modou ja parce que tamit bi ma gis keroog. Lac Rose fi mu nii booy booy bi fi mën la daan de. waaw booy bi fi mën la daan mais Modou Dia moom agressivité bi nga gis. démb ci Modou Dia. waaw sañ-sañ bi. dóor kuu kuu bi bu lay dóor da lay xool dóor la ba pare bu lay jàpp da koy jëli ji ba mu mun a Modou Dia ni muy bëree dafa wóor de. ah boo boole kook euh, Lac loolu loolu loolu. combat bu neex la combat bu neex loolu dana saf sàpp de. parce que li tax muy komba sax li gën a tax muy combat. mooy la. Euh, boo xoolee ndakaaru dañoo def cent pour cent comprendre boo xoolee mbëru ndakaaru yëpp dañu def cent pour cent te boo xoolee double moteur si la bokk ndakaar mbëru ndakaaru la effectivement comprendre kon tamit loolu boo daanee boo daanee double moteur yoon la nga tàllal loxo la grosse mu may la sens yoon la quoi làmb boole na leen te ba pare combat bu neex la tamit ah xam naa ne ñaari mbër la yoo xamante ne ay mbër yu ñeme lañ de. combat bu neex la ay mbër yoo xamante ne kenn du si dellu ginnaaw dañuy xeex dañuy bëri ñoom xool ci kanamam. Mhm. comme fi mu toll woon ci làmb. mais non est-ce que jarul mu taxawaat tuuti confirmer xoolaat boppam état physique. bi tout ça soogaa jëliwaat ñi ci kanam. est-ce que loolu gënul tamit quoi pour man man pour man pour man loolu mooy gën a kii. mu stabilité waat fii bëri ci ñaari combat mhm. bii ak beneen. xoolaat boppam. nattaat boppam bu baax parce que tamit fële ci kaw cour des grands la de. foofu bu boobaa rek mais lii mu am nii lu mu ci dolli dem ci kaw. effectivement parce que combat bi moom moo tane forme yu mu doon indi. combat yi mujjee wax dëgg yàlla nag. quoi lu mu ci dolli day dem ci kaw. parce que indi na ci forme liggéey na ci bu baax a baax a baax. Lac Rose ñu koy félicité ci ndam li mu am. Mm-hmm. nga xamante ni wax dëgg yàlla. semaine bi moom semaine waa Fass la quoi semaine yi toppalante nii Gris 2 jóge fa moom tamit mu ñëw confirmé donc xam naa ni Gris Bordeaux bu mag bi instant bi moom mooy ci des moom tamit donc ñu leen di xaar moom ak ñëm Ama Baldé seen combat boobu donc mais mais mais Modou Dia ak Lac Rose ah, ah coach combat bu neex coach moom loolu ah, de ñu seetaan kon Modou Dia ak ki nga xamante